waaw quartier bi mooy quartier Médina Sarr boobu Cheikh Ibrahima Sarr Diasaka sëñ Xaadim nag dëkk fii di koo xamante ni ku baax la loolu wax dëgg yàlla quartier bi rek moo ko ñor nag ak liggéeyal quartier bi leneen ñoru ko ak fal président Macky Sall jël dooleem ak alalam lépp di ko def ci koñ bi nekk ay station yoo xam ne ñu bari lañ wax dëgg yàlla am mbooloo bari tokk ci ginnaawam ci liggéey doo ko ñor leneen ñor ko liggéey rek moo ñor ca Xaadim bu wootee maanaam day xaarul kenn ci lenn mooy ni boppam lépp lay doxee ci réew mi tey jii ñu ngi départ fii ci pencu Médina Sarr waaye ñu ngi jëm ah, ci biir gox yëpp ci Touba ñu ngi nii di génne Médina Sarr waaye ñu ngi war a jaar ah, ba Touba Madiana 6 buñ fa génnee ña nga jëm Madiana 2 ba Madiana 3 buñ fa duggee danañ dugg Janatul bu buñ fa jógee danañ dem garage Dakar danañ dugg Mbacke Bool li ko ñor mooy ndamul président moo ko ñor liggéeyal président ko ñor rek ko ñor engagé wu na nag ci président.

ànd ku baax muy Xaadim Gueye sopp na bi di sa doom di responsable politique nekk fii ci dëkk bi di ko bëgg monsieur président bi mu tàbbee ci parti bi yàggul waaye dafa tàbbi rek tàllal la loxo nga ne ko sama doom nga sama lépp nga damaa bëgg ñu ànd liggéey bi ngir falaat monsieur le président la république kon xaadim gàcce ngaalaama li la war lépp def nga ko ndax ànd ba mu jeex ànd ak ka nga war a àndal moo ci gën. amit bàyyi àll kon gàcce ngaalaama li la war lépp def nga ko li la war président lépp def nga ko bàyyi àll bu ñu ñeent ñu mel ne yow fii ci Touba président du fi mën a bañ am ndam waaye nag ren xel yëpp dal na ndax gën ngaa teel a jóg wàcc dooleel say doom dooleel say dëkkandoo dooleel say àndandoo ngir ñu falaat monsieur le président de la république. te mën nañu bàyyi te suñu xel dal nañ ci moom am nañ yaakaar tamit ci moom bu baax a baax maa ngi lay xamal ne man de la nga waxoon rek fii ngay teral xaadim loo jóg suba ba ca ngoon loo ñu wuy si la li commencé Ndiané Midina Sarr xayma ya fépp daal xaadim mooy borom te xaadim bu dee borom yow yaay borom Bayar man Ndeye Diouf su ma la waxee loolu war nga koo gëm ndax jot naa am lu ñu waxtaane ma ak yow suñu xel dal na ci yow bu baax a baax. kon Habib bi bu jógee ñëw ci taalibam sëñ Tuubaa bi bu yaakaar bu dul sëñ Tuubaa ñu ne kan moo jóg ñu ne Xaadim moo jóg sopp nabi Seydina Muhammad Muhammad Rasulullah wala sinama ajdaa wala bu wér sama su jadan yëpp loxoo na fadlan min allahi wa ridwanan Xaadim bi bu jógee war naa ñëw ci yow ba tabaaraka Allah masha Allah ba yàlla Xaadim bi bu jógee tari wala maa bëgg benn buntu damay bëgg buntu ba yàlla yéen waa Ndiané asalem mbusoobe ba daaru karim jën jëf amatuma seen fay li ngeen wax dëgg la lim fa bàyyi bari na waaye yaakaar naa bu ma bëggoon a andi ñëpp rek ñëpp duñ xaj si mbedd mi danay wax ne jërëjëf gàtt na waaye ku jëful doo ko dégg merci yom na si tab ku troyal doo ko dégg te koo xamul noo koy def nam la defa tax fan yëpp ku gis samay vidéo xam ne santuma kenn gërëmuma kenn ku dul moom lu ko waral mooy bi ma sooboo président tàllal ma loxo ma Marème Faye Sall tàllal ma loxo engagement bu ma ko jëlee jël naa ko te jël naa ko ci jëmmam loolu la yàlla dogal xanaa rek li nga xam ne sept président da ko doon bëgg si biir Touba te mësu koo am mësu nu ko may ci biir Touba ren la koy am ren te incha allah ci kàttanu suñu borom barkeb si mun maa koy jox maa koy jox fi tuwaar bi fii ndax bu dee alal la koy joxe danaa jaay sama kër def ko si bu dee am naa ay bien danaa ko si def lu muy boote lu mu jar rek man jaral na ma lu mel noonu. di sant sëñ Xaadim bu baax di ko gërëm ah, ci engagement bi mu jël pour ñëw jàppale Macky Sall pour mu am deuxième mandat ñun ñu ngi ko ciy sant di ko wax dalal jàmm. di leen waxit nag ni yéen ñi ànd moom tamit ngeen dalal seen xel bu baax. li tax ma wax loolu it xaadim ñëw na fi waxoon na ma ay waxam bi ma waxee tamit nee naa ko première trace bi de xam naa jàll na mais deuxième trace bi de li ma yéene mooy bu ñëwee nga ñëw toog fa ñuy toog ñu séddalee mooy lu ñu war a génne ñu génne ko di ko teg ci sa loxo kon loolu moom rek laa ci amoon lu ma ci war a wax leader la yàlla moo ko def ñun defuñu ko ko te li ko suñ borom may ñun duñ ko ko jéem a xañ kon dinañ fas yéene daal ngeen dalal seen xel bu baax bu ñu eggee ci li ñu war a jëli nii xëy na ñu jëli ko tey wala ñu jëli ko suba fu ñu taxaw di ko joxee danañu taxaw kat lii wàllu waa Ndiané wala lii xalu Xaadim Gueye ndax engagement bi mu jël pour faral président de la république ni mu ko jële bari nañ ñu fi nekk te jëlewuñ ko ni kon nag ñun ku li kuy liggéey rek lañ xam ku bëgg a liggéey na ngir faral président danañ am taxawaay bu nga xam ne fu ñuy joxee lu tax président falu ñun dinañ fexe ba bu ñu koy séddalee say moyen nu nit ñi tolloo rek da nga na tollulee loolu rek laa ci bëggoon a am lu ma ciy wax dalal leen seen xel bu baax te xam ne moyen yi ngeen liggéey moom di ngeen ko am incha allah jërë ngeen jëf yow ak mboolem seex ñun yun mënta tudd santaat yàlla ginnaaw bi nu demee si caravane bi ba ñëw dem si bisimilahi rahmaani rahim del si alhamdulilahi rabbil alamina te dara waral lu ko woon lu dul gën a wane rek sunu engagement ak sunu gëm-gëm ak sunu bëgg si président makki sàll ndax dañuy wax ne as boo ko teralee yaa ko tëral boo ko troxalee yaa ko toxal te koo teral bu dees gor lu mu xalaat ngir fay la rek war na la koo fay ma gis ne président Macky sàll ñiy yàq xel yi bari na lool ngir jiiñ ko lu ne wala ñu waxal ko lu ne waaye lu si man di doon nangu naa ku ko mag si miim réew waaye ku ko gënub xol gën ko jukko gën ko engagement bu gën koo bëgg Sénégal fanaanul si miim réew loolu nag bu amee yàlla dogal mu nekkoon si beneen parti parti ba génne ko mu gëm yàlla génnal boppam ba ànd ak ñi àndal ba yàlla teg ko si bopp réew mi bim ko si tegee ak léegi sept ans yoo xam ne président Macky Sall lu ne dégg na ko lu ne wax nan ko lu dul lu dul lu dul loo xamante si ne du sax lu nu mën a wax wax nañ ko président mu tax gumba muuma lu bëgg Sénégal bëgg kilifay Sénégal bëgg tarixay Sénégal waaye nag mu am cofeel lool si Serigne Touba te ñun amuñu ku dul Serigne Touba gëmuñu ku dul Serigne Touba wóoluwuñu ku dul Serigne Touba président sept ans yi mu fi toog li mu njëkk a def mooy teg wu xeer Serigne Sidi Muxtaar teg ko muy Ila Touba loolu rek war a tax murid yi jàpp ko ba faw président teg sa hôpital boo xamante si ne àdduna wër na képp Afrique dans le monde entier amul fenn bu ko neexoon quatorze régions yi ni ma koy waxee toujours fu ko si neexoon samp ko fa bu ko neexoon dëkk Sénégal yi dëkkam ba mu dëkk di Fatick bu ko neexoon samp ko fa bu ko neexoon samp ko feneen mu daan ne hôpital bii li muy rëy rëy rëy rëy li muy seer seer duma ko yuti kenn ku dul Serigne Touba loolu war a tax ñun murit loolu war a tax ñun jullit ndax Serigne Touba ku ko teral teral nga tarixa yëpp ndax yàllaa ko njëkk a teral yonent bi teral ko mag ñu baax ñëpp jox ko waay loolu war a tax ñun ñëpp ñu jël sunu engagement jël sunu gëm-gëm tax gumba muuma lu xam ne sunu Sénégal kii fa mu bëgg a yegg moom rek moo ko fa mën a yeggale gannaaw yàlla ak jëmi sunu borom ak Seydina Muhammad ak mag ñu baax ña rawatina Serigne Touba min gëmul ku dul moom. waaw loolu mooy li nu gën a naqari ndax wax naa la léegi as gor boo ko tëralee yaa ko tëral te ñun Touba Macky Sall di seelatunu dara ñun Touba mboolem luy teraanga te sëñ Touba ñaanaan ko yàlla jaaral jaarale na ko si Macky Sall andi ko mboolem lu mu ñaanoon si dëkkam bi rek Macky Sall ma ngi xool loola di xeeñtu loola ngir def ko si biir dëkk bi ma xool man PDS laa woon yàgg naa fa lool maa ngi doog a dugg. si parti bi waaye dama tëdd ba guddi xam ne nag ay la yewen jërëjëf gàtt na waaye ku jëful doo ko dégg te ku bañ a gis jëfi makk sàll bàyyi boo nga pattal sa ñaari bët yëpp waaye lim fi def lu ne fàng la kenn du ko jeex ñun ñu war koo faye nag jël suñu carte électeur yii nga xamant si ne amuñu lu dul moom amuñu lu dul moom te Macky Sall diiroog mu fi nekke teraanga ju mu xam ne bu ko andee si dëkkub sëñ Bamba bii murid yi bees andi na ko si dëkkub sëñ Bamba bi ma ne nag ñun murid yi rawatina ñu ndaw ñii nga xamante si ne am na ñenn ñu fi nekkoon nekk fi boobaak léegi muy wut victoire mënu koo am waaye ñun ndaw ñi war jot na nag ñu takku am pas-pas am gëm-gëm fas yéene delloo naar bi xorom si mooy delloo ko njukkal fay ko jéem koo fay li mu defal sëñ Touba te sëñ Touba man koo fayal boppam waaye ñun nag ñu war ko wan ne li nga defal sëñ Touba mboolem ku yaakaar sëñ Touba bég na si kontaan na si ànd na seeg yow te di la si ñaanal damay wax ne vingt ans bu bu jaadu woon sax vingt ans lay toog si Sénégal. ndax bu toogoon vingt ans man leer na ma ne man xaadim sopp na bi leneen la ñuy wax waaye Sénégal ay daw wut si ko waaye dootul benn sénégalais dootul daw di wuti beneen réewu Afrique wala beneen réew àdduna bi si daale le monde entier yéeneem jooju mu am nag commencé ay tabax nekk sa nekk sa yii pare mu inigiré ko ñëpp bég ñëpp kontaan ay juma ay jàkka lu ne mu def ko lu ne rek mu def ko ba si Ila yi waaye ñu war koo may nag deuxième mandat ba troisième mandat ba quatrième mandat barke sëñ Touba yeyoo na ko yelloo na ko ndax jë def na ko si dëkkub sëñ Bàmba bi yéen a gis bu yàggul rek deer yi fii si Touba yéen a ko gis ñi jotul ñi jotul bariwul yéen a gis sunu baay yeeg sunu yaay yi nga xamante si ne bourse familiale yi fii lañ daan toog daaw nu am dara barke sëñ Touba léegi Macky Sall di leen ba kenn ku si nekk boo daan boo daan sonal sa sët si dara wala ngay sonal sa doom si dara te sa xëy na sa doom joojee jotiwul loxoom jotiwul ginnaam noppal nga ko sax waaye nag kenn du kenn nag ki ma tax a sóobu ki tax ma dugg ki tax ma jël engagement. Marème Faye sàll du bëgg garde koor garder ko Marème fay sàll du bëgg kenn tëj ko tëj ko Marème Faye sàll lu yenn si moom daa naajee ñëw lu fanaan si moom daa guddee ñëw. saa bu nekk muy dugal si nopp borom këram lu baax lu nekk war nga koo defal Sénégal lu baax lu nekk war nga say jàppale néew ji doole kon gàcce ngaa laama Marème fay Sall moom rek war naa tax ñu jël engagement moom rek war naa tax ñu itam ñu jàppale borom këramam bii di El Hadj Macky Sall nga xam ne yéenim senegal ñëpp xam nañ ko man nag damay ñaan ñaan laa am te li may ñaan mooy man xaadim sopp na bi ndeem am naa sëñ Bamba dara maa ngi ñaan si barkeb sëñ Touba mu gagné premier tour. balaa six ñu joxaat ko résultat yi mu duggaat ci biir palais bi mën a yeggale ab liggéeyam ba li mu yéene si biir Touba lépp mu def ko bu kenn yàq suñuy xel bu kenn yàq suñuy bët bu kenn yàq suñuy nopp nanu daas fanaanal xam ne sunu réew mi keneen kuñ ko jox ku dul Macky Sall xam nga la ñuy dal day mel ne ku fondement di lijjanti lu mu yëkkatee néeg ba amagu ko nga koy gasloo waat kon boobaa Sénégal du ma sa jekk du mas a baax du ma sa dem fenn te fu nu dem du duñ bëgg a dellu si Sénégal comme que ma ngi commencé tabax Sénégal am na yu noppi am na yu war a noppi na ñëpp nag ànd ak moom jàppale ko deuxième mandaam ah, si kàttanu yàlla 24 ah yéen ñëpp si fas wi yéen ñëpp si maron bi yéen ñëpp. si Macky Sall yéen ñëpp si Marème fay Sall yéen ñëpp si ñi nga xamante si ne ñooy tarixa Sénégal bi yëpp si barke Seexul Xaddim ñu falaat ko première première tour six heures dugalaat ko si palais bi.